والذي يفعل ما يريد دون الذي يريد المريد وهو أي صمد وباب سبحان سوق نف وواب نن سنت تيفة من تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أنا الدنيا waxe kàddun lan wan ku nekk wéy na te seetlu xayru xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu naa wa ma muhammadun illaa rasulun xalxalal lii mu doon duniyaa surul kërëk taxu di yaale xayrul waraa waa makka dun ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makki yoo dellu desi yóbbu ahmadul bakki bàyyi sunu maam Cerno Ibrahima kële di xaadim yooyu la yaari kan wile ko yetteel fa daarul fi dawle ala si Ibrahima ma jooyle suuf ibran awa dafima على خليل إبراهيم مدن جل أكرم قديم جنتك دائما جرن إبراهيم ويرنجي جاي ليلا برابيما جمامات نويرو كروا جاينا بنوي درم مجاكتا دامرة جندارو jaal sasin cey yalla maaga waaru warootina waaru faraw ka wandaaw jommetina mi mbiroyne leen waaw ay mala xaali xalilullahi way joola leen masaana jaay lillahi ay mala fardi xalilillahi maam cerno ibrahima عين على قطب الورى سنجاء خليفة القديم عين على كرم رجال الله سيف شيوخ قائد الله ويمن ويمن مكنيا def ko sëriñ fu muy jëlee di fatu mooma mayen fa daaru awsili ummati nabi ahmada darajay sëriñ ba abdul xaadir dellu ma may musabbi abdul dellu ma may ma دون سوء ما مكور الفدار المهد ما جعل سي احمد او بلا با يمدوهم تكر بلا يلورا يا مغني عن جعل سي محمد الابي وين بمو ابل الجري ويا خليل الله ويتانا جدي وانجو ندفن لنجام wallaay saar ngooñ war na ma jooyo jooy ba sama gëdi mu saaru gi lax na saa xol mu si boobu saa ceri la gi nan na jar na dem billaahi wallaahi tegal tallaahi xalilullahi ibrahima war ngeen yow jar na fi garab gu nee na jirim na jaa nga nit ñi jaaru imaanu diinuna imaani wasaa'ibul islaami wa lisaani jarnoy kenul diine dirug lislaam moo jëkk moo mujj te moo fi te nun la yar mbaarum sëriñ ba na dee jël yóbbu dal ne ya daanu na maam Cerno dem na yóbbu far sëriñ daam sëriñ mamar ab sañu ngi indi